xarit yi suñu ami internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziaral bu baax comme liñ leen koy faral di defee rek ba tey rek ñu ngi fii ci Géejawaay maire maire ville bu Géejawaay bi nga xamante ne ni ay dara moo nekk ci bopp ba tey ñu ñëwoon fii nga xamante ne ni da doon joxe ay bagages yi nga xamante ne ni moom élèves yi nga xamante ne ni di ko di ko di ko soxla ci école yi tey na ñu ñëwoon na doon def remise bi ñu ngi leen ñu ngi lay fay bu baax a di am contentement nag daje ak yow fi nga xamante ne ni mooy mairie bi nga xamante ne mooy mairie ville ñu ñëw fekk nga ñëw di jàppale ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Ahmed Aïdara ci liggéey bu rafet bi mu def waaw dañoo ñëw tey pour jàppale suñu maire Ahmed Aïdara parce que dafa am initiative bu rafet initiative bu mu am mooy ñëw jàppale la population de Guédiawaye parce que ñëpp xam nañ ne que la vie coûte cher xam nañ ni que la vie coûte cher donc euh, euh, le maire Ahmed Aidara gis na loolu mu ne du croiser les bras c'est la population de Guédiawaye di son du euh, l'idée d'aider les parents en achetant des des kits scolaires d'appeler les parents d'en leen quelques fournitures d'appeler également nous nous les lycées en leur fournissant également du matériel scolaire Lolo waral tey suñu suñu sur les bi tey ñu ñëw pour parce que dafa beaucoup de programme Le programme am bokk na ci la population kon nous nous lii.

<laughs> macha allah tey dafa mel ni dañoo ñëw fekk leen Ahmed Aidara mi nga xamante ne mooy maire ville de Guédiawaye mu doon distribuer ay euh, bagages yéen lan ngeen ci jàngat ci loolu. waaw dafa nekk lu am solo parce que en fait dafa nekk lu am solo parce que en réalité ni ko préfet waxee euh, éducation compétence transférée la. Donc donc mairie bi am responsabilité budget gérer li nga que nous besoin école yi nga lycée ak collège et donc mom comprendre responsabilité nonou jël euh, ci malgré budget mairie ñu ne ko mu nous ci lu tax may école yi lycée ak collège yi renforcer ci sen ñaax xalé yi bu ñu gëna ont japp nañ besoin am solo la parce que dañ nekk ci zone bo doole parents situation dëkk bi Nous na ci de cher ak leneen donc boo amee ku leen jàppale jox leen ci euh, lu mel noonu matériel scolaire te lu baax loo xam ne dañ ci a encouragé maire dañuy encouragé maire bi encouragé amet ñu mën a ñaan yàlla mu jëriñ xale yi incha allah. maa ngi la ziar aussi di nuyu ñëpp di nuyu population Guédiawaye di nuyu borom euh, euh, site bi di suñu tonton Ndiogou Malick di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wër gudd fan dem ba ngeen yor télé waaw. mais ñu gis la tey ci biir ville bu Guédiawaay sa taxawaay fii ci watu ki nga xamante ne ni mooy monsieur le député maire El Hadji Ahmed yow tey lan moo fi yoraloon tey sa taxawaay. waaw dañ ma ko defal tey ji en tan que honneur boobu moom dañ ma ko defal en tant que doomu Guédiawaay parce que bu dul député bi sax doomu Guédiawaay la nekk fii aussi conseillère au niveau de la ville de Guédiawaay waaw ñëwoon tey ji assister ci remise de matériel euh, scolaire bi nga xam ne ni monsieur le maire doon na ko def tey ji vraiment mu nekk honneur waaw ni ma gisee taxawaayam rek mooy doomu géejawaay la te yàgg te nekk nit koo xam ne ku bëgg géejawaay la parce que liñ naan bi mu démarré ba léegi combat yëpp pour doomu géejawaay la kon loolu dañ koy rafetlu aussi doomu géejawaay buy jóg di taxawal waa doomu géejawaay du ñu def lu la jóg ànd ak moom ci combat boobu waaw di ko rafetlu bu baax a baax a baax te xam ne monsieur le maire moom dafa bëgg géejawaay gëm géejawaay kon nag duñ def lu la ànd ak moom ci combat boobu merci beaucoup honorable député kontaan nañ ci yow sama mag ji <laughs> waaw maa ngi leen fay

lépp moom mënut a mate mais moom dina def kéem tolluwaay kàttan ba dina wàññi coono yi parce que population bi dañu am ay jafe-jafe jafe-jafe jafe-jafe il faut nag état bi di jàpp di dugal loxoom di leen jàpp pour les scolaires gis lu mu gàtt gàtt de am na 3 ba 4 ba 5 élèves kon ñooñu ñu war a dimbali ñu war a taw ñu war a ges susuma l' état l' état moom waaw susuma l' moom dafa war a ñëw ci ndimbal bi aux années ñun année yi nga xam dañ nekk ay xale yu ndaw dañu naan léegi naam population bi yokku na mais lu mu yokk yokku tamit état bi tamit dafa war a jàppale ak di leen gestu comme ni ko maire yi defee l' état central noonu la ko war a defee waaye. incha allah léegi yow taxawaayu Ahmed Aidara bëgg hmm. nañ ko mu dafa naan képp ku yeewoo géejawaay waxuma la géejawaay mais sur le plan national ñëpp xam moom avant muy nekk maire dafa yàgg dox social kon nag bu demee ba retour ñu ñu dénk ko loo xam ne askan bee ko moom dafa naa ni da ci gën a day yokk mais du wàññi taxawaayam moom ñëpp dañ ko defoon parce que ameen moom du toog un mois bu mu deful action sociale su ko deful fii ñi di ko gis dina ko def suuf li muy def suuf sax te ñi nit ñi nit ñi duñ ko xam moo ëpp li muy def ci kaw nit ñi di ko gis ameen moom dañ koy ñaar rek li nga xam moo la bëgg rek gars yi jàppale ko ba objectif mu atteindre ko objectif moom mooy géejawaay yàlla dimbaleen coono yi wàññeeku maanaam du ma ni lépp dina dañ mais dina def suñu kéemtalaay kàpp ba coono yi moom dina wàññeeku incha allah ci kàttu yàlla waaw ñu ngi lay nuyuwaat di leen santaat di leen gërëm di leen wax ni vraiment sen site internet bi ñu ngi koy siru baax ñu ngi ñaanal goor gi nga xamne moy borom ñu ngi koy ñaanal yalla guddal fanam wéral kër ñu buñu waxe ni dinañ xam pa bi nga xam ne moo site bi mom ko yalla ko suñu borom japp parce que pa bo xam day def social social yi def moo tax site internet bi di ci jallale bëgg-bëgg nit ñi ak askan ak seen kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh boobu Ahmed sosial. honorable député moom soo ko xam nga social social sax lañ ko a ndax depuis ans mu ngi social di ko def salaire am di ko def si léppam tey nag bu yoree dem ba poste poste maire ak post député tey loolu ñun ñëpp dañ ko war a waruñu koo xaar si moom sax dañ ko fiy fekk di ko rafetlu di ko yokkal engagement wam di ko jàppale ñun daal tey loolu mooy fi suñu teewaay bu tegee benn paa ñu teg beneen bi si wetam rek loolu la loolu mooy fi suñu teewaay. merci beaucoup. di teew nga bokk ci membre bi nga xamante ne yéen yéen a ci maire bi di jàppale kii di monsieur le maire Ahmed Aïdara ci liggéey bu rafet bi muy def géejawaay tey ñu bëggoon xam tey seen programme bi ak concours jërëjëf kontaan nañ trop laaj nga ma laaj boo xam ne ci sawar wax monsieur le maire nañ ko ñaanal faram yokk wërsëgam comme bi nekkul dara la nekk dans les cinq communes li am mu bëri mu ñu commune kon nag tey ji bu ñëwee ba yàlla la mu doon wut yàlla may ko ko ak jàmm jëlaat ci wërsëgam dolli ci di su fàttali ko école yi du ñu def lu ñaanal ko yàlla yokk wéram monsieur le maire nag mi ngi au chevet des malades mi ngi au chevet de l'école vraiment duñ mënu daal lu ñaanal ko yàlla yokk wéram daal waaw macha allah rafet na merci merci beaucoup ne yal na yéen bi oyof ci barke yonent bi ñu bëggoon xam tey sa teewaay fii. amin incha allah yal na yàlla nangu ñaan waaw suñu teewaay tey fii li ko waral mooy suñu honorable député ay dara moo woote suñu xarit suñu càmmiñ suñu honorable député suñu maire aussi maire de la ville ay dara moo woote invité ñu ñëw fi tey. ci li nga xam ni moom la programme pour jàppale ko élèves yi nga xam ni ñoo nekk ci biir euh, géejawaay yëpp vraiment mu nekk initiative boo xam ne initiative bu rafet la ñu ci am mbégte bu baax a baax di ci kontaan bu baax a baax di invité responsable yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la ville de géejawaay yëpp ñoom ñëpp ñu def la même chose muy député yi muy maire may ku mu mënta doon parce que kenn ku ci nekk xam na ni jamono tey dafa metti te jamono dafa metti nag bu ñu gisee koo xam ne dinañ leen jàppale ci njàngum xale yi dañ ciy sant yàlla bu baax a baax dañ ciy sant yàlla bu baax a baax muy lu rafet nag ñu di ko ci encouragé bu baax a baax ñu di ko ci encouragé bu baax a baax parce que li mu def li du lu ndaw bu fekk foo xam ne ay élèves ña nga fa nga jàppale leen jël sa doole def ci ñoom te xale ku ko lebal yàlla fay la kon dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci li nga xam ni def na ko di ñaan aussi résultat yi nga xam daan nañ ko am au niveau de la ville de Guédiaway bii di ñëw inshallah mu gën a yokk te day gën a yokk sax incha allah ndax bu ñu gisee nii ñuy jàppale élèves yi dina yomb ci ñun parce que kenn ku ci nekk xam na ni jigéen ñi ñoo yor kër yi te jigéen ñi dañoo sonn ci kër yi te kon bu ñu gisee tey ku leen jox benn coup de pouce dañ ciy sant bu baax a baax ñu koy remercier nag ci invitation bi nga xam ni invité ci nag ci muy lu rafet mu da ndax dafa mënuñu ñàkk bañ a ñëw ndax dafay suñu càmmiñ di suñu lépp incha allah lépp lum ñu woo rek dinañ ci ñëw incha allah teewal ko bu neexee yàlla kontaan nañ bu baax a baax. merci gën a dooleel résultat yu baax yi nga xam ne moom lañ fi tudd te ñu yàlla mu dellu ginnaaw di ñaan nag ci borom bi loolu ñuy gént te am na njort ne dana nekk maanaam di am ay 100 pour bu examen yi jibee wala yenn ci ay concours yoo xam ne ñu ngi koy amal ci réew ñuy wax vive l'école sénégalaise vive le Sénégal di leen gërëm di leen sant bu baax